ñaari xel newu fi hakkil fulati jàng te dëgga dëgga fu euh, honorable minister Fat Lamin Faye tamit nekk euh, jiit a ko andun toña toña nin honorable Fat Lamin Faye keta daame ñaaton kooti problème ak fa de ako problème o bi jeet ñun sax ñu ngi am problème fu mu nekk ci fundraising committee bi a contrôle fa nga sa am fundraising committee problème o ɓe mbulu because bés bu nekk ak kaatu lu ngoo lum kulle deewoo anga problème ako <laughs> lungol min letta lungol nde probléme o ɓe ɓulo kon xam naa ne Banjul moom fu mu jaar ci loxo yu baax la nekk ako woto a lonne ko Banjul wolɓe bulu kendolle kono kon amuñ amul benn rus bu fee am ako ama jigi ko malu kuube kela jang léegi li def ako be min kela dinaa o eh, council of elders vice chairman bi ako mse council of elders la vice chairman chairman nomalanko kili la ki nga xam ne mooy laaskat waxi banjul mi yaa lon ko wala diamu kela diamula labawnti bañun ko la karo la di alhaaji mbay thiaw uh, ah, min mu alhaaji mbay cawti mu ñoo waxtaana ani ah, jamaye kaca gannaaw bu ñaanee suñu borom yàlla may ñu fekkee jë jëmm ju mel nii ni barab bi la jëmmoo tey ci àddina akuka ala tentu ala miya lonko wole bendijan bi nga nga maabe ñin e, dula buñaare ngoto lañ ca mun a njëkkee wax rek mooy alhamdulillahi rabbil alamin jàmm rek a gën c'est folo min fola wo kuwoto wolem ñinti donc ala tentu kaa alhamdulillah kaatu kayroo wo dronnem fis kóoti min fisiyata ma njëkkee ci suma bopp ne ñu ngi bugg a doon mag di ñaan président ne nuyu bi ma bugg a nuyoo aka président daani ko lafita kontondiroo min ke la mooy dama boole suma kaddu yëpp ci nuyoo bu njëkk ba sa euh, euh, mayo Samba Fall nuyoo woon ko ku kumo be kum fala ko a euh, ko ko me sama fale kontondi flo min ñam te limon ñep ay minu be to fonu nje maa ngi koy maa ngi leen di nuyu ko bewol kontonna di teg loolu ci loxoom Kaula uh, His Excellency Bulu. ñu teg ko ci loxo suñu président. Kalaame Fall Bulu Kala président Bulu. mu jooxeel ñu ko ndaxte mooy jëm bërëb bii tey. naam su ma bëggee door ci ni ko tubaab di defee di tudd ku ne. a ah, ko ko naatoral afta a commencé la ko tubaabol ka controndire o kiñaami kam moo ɓeetoo kili gars yi boo lañ ci muusaay sax di wax ne all protocol observed bokk yi maa ngi leen di xamal lu néew rek a ah, ko baadiŋol mbe ku ku dantaŋi eh, mbaal kalamutandir la ku dantan na doron jotaay buñ mus di jooya ngi nii ako eh, benne ñinti bemmi yaalon ko meeta kumbola ndaxte jamono ju ne dañoo wax ne dañ bugg a janoo borom réew mi ci kanam ako kaatu waati o waatin ka fole kon lafita nin banko ñaaton ko ye si ñaato dañ ko buggoon de lafita la nun de daan ko jàmbat eh, nka la kumbola ka ka wosi meeta wosi la président xam na ne foog nit lay digaale Ah, xam na ne nit lay digaaleel president loon lonne ko anin hadama dingol lebbe kuwol ñootema fokk ñu am lu ñu dee jàmbat rek ako ah, foy se ku soto e be be min woosi la doro ndaxte li ñu yàlla defal ñun kaatum tol alay min keñe len amu ko ci àddina wo ma wo soto duniya kono ñun ntol nit hadama dingo yàlla daf ñu jox xel eh, adama dingo alay sondomo dinna joxu ko dara am hakkiloo dinna man fen ama di fenna bon wàcco naa ñun woto ah, anin tolli tolni anin tolli a banne way be tere ñu naan ko dollil ah, bari hani wo be kan ka fo alay ko ala fa bon président Jammeh woto président Jammeh alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñun waa Banjul lay waxal de ntol Banjul ko mbeddiyam la kan wol ne wala la ñun ñu wooyee tey elders ntol kan tol mini kili kili ñaatu ah, la ne ñun ñooy magi Banjul kon tol lem Banjul kebalti waaw ñooy magi Banjul de tooñaale tol lem de parce que dund nañ léegi juróom-ñaar fukki at petek ay ay at ah kaatu baawo nga sanji tan worow la ni fem balu maa ngi ànd ak alhaji Ousmane Basi Konaté a ko alhaji Ousmane Basi Konaté Silo Bula mooy suñ chairman mbole muy la chairman xam naa ne Major Samba Fall waxoon na umbal li umbal lépp a ko mais a ah, lon ne ko Major Samba kumoo fële nu mu kumool be kuwol bee fudu waaye ñun nit a ko barintol mool hadama dingol dañ bugg ku ñu tudda lafitale lafitale moo mi ngi kam dégg bu bu olof di wax xam nga olof dafa muus akoya lon surwa ñamentale suy wax boppam naaba fam la dafa wax man nit aka fole nte hadama te cori la mu ne la yow nag a koye ko ite ni bul doon nag mukk a koy bankana ke ni sooti de <laughs> moo tax ñu tudda moo gën Ah, walati na koy ko min fisiyaman min fisiyata man ma alhaji ousmane konate ako atenin alhaji ousmane konate cattuti kabiri dinding ñu anda ca tuuti kabiri dinding ibe ibe ñoo ibe ñoo ñu bokk benn jamono e e dente jamono kilina di football school together e ka football ke kramoto e musu ñoo juumoo nene man fooñoo ko dëgg rek a ñu boore eh, eh, tooñaa dron wala wala kafu ñii wax ne dama dëgër boppa minu kaafu ko ate ate ku nga jaatale ñeneen ñi dama tànga doolu ko a kanditale moom du ko wax ate bu kaa fo tu naxari deret a a manqué moo sangararin li président di wax bor bu set président kami fo lu ngoolu ñun ntol daf ñu ca fekka waaye ntol tarawo ko konole déet déet hani bayil abula déet hani ab bàyyil bàyyil abula lu du dëgga ni manqué tooñaati du dëgga wote tooñaati lii dëgga ni mu tooñaati rek ay dëgga wo drone be nii bulata nooma toppa ca rek e, bulaa nooma dron incha allah doo am loolu xari e, ite ite ko nii ku yaa ku soto la man ma Ousmane looloo ñu boole ca ndaw a ko ntening Ousmane wala en kafu kabirin dinding moo tax buñ toogee tey ba jël over council of elders woto nii siita bii fooy tol keta la ñaaton ci yoon rek de ako ha silo kan ronnem nit bala nga koo óolu da koo xam ako mooja ni be laalaalay ka kaa lonne ñu ngi ànd ak aji beti seen ako ning aji beti seen fana be sila kiling ñu be jógee ñun ñëpp ci benn benn géño lañ jógee akon tol bee na wulu du laa kilin ne ñu ngi ànd ak kati gospel ning kati gospel fana be sila kiling ca démba ca démba kabirin kunun ba démbay doon lam doonoon a ko kabirin kunun mu kununti a keta kunun keta kununti yàlla boole ñooma moom ala ye naa boole mu càmme mu càmme ñooma a yen ke baarin keeti ñun ci akku gi fii ntol bee bota akku kundaajang akku gi mooy walla west ako wolem westi afa bari woon aku ako tum ñu ne ko akku gi i kili woy toola ak abu Diallo ako anin Abu Diallo fana bɛ sira kelen alaaji Sehu Cissé alaaji Sehu Cissé alaaji Babacar Sadji alaaji Babacar Sadji ñun ñëpp ñu ngi ci yoon wi naam dama leen tudda pour ñoom itam ñu yëg ne a koy tool bee bee sira kelen ay kumandi le pour i fana ye a kalamuta ye ñi kalamuta ko ñu yëg li ma yëg a yete min kalamuta e fana te dama yek sante yalla bu baax ako kaatu ko bi ate min kalamuta sonno ko wax ne dama ko bala ma kontaan ah la ma janoo président nin président li parce que man dama bëgg ku wax déggal ci yow bu jeex kaatunte lafitam la mi yaa lon ko ay ka tooñaa bee kono ay ban ki fi def li fi kenn deful mi ye kuuke jam moomo nene ma min ke ñu def la fi luñ fi deful kenn ki fi def lu fi kenn deful min mi min mi yekkuuki yam min moo nenama min ke ñu def la fi lu ñu fi deful kenn ate kuu kela si kuu ke enen manque thank you tey tey Banjul a ñuy wax ako bi Banjul neati na mbe diyaamu la te Banjul ako Banjul mooy jumbaxi Gambia ako len Banjul ah, Gambia batakuŋoti Banjul Banjul mojumbahi Gambia akole mba Gambia bata kungu alhamdulillahi rabbil alamin ako alhamdulillahi rabbil alamin ñu am président boo xam ne nga président soto mi yaalon ko dañ ko sax ci olof dañ dee wax ne ñun ko surwal ndol kaapole ko dañ lay yedd ci wanag wi a ako yey yaamari jonkoŋo la ko ko mooto dal di la seetlu ci cabinet bi kane ke korosi cabinet oto ebal la ca itta ba yee yee yee yee kii luwoto soo juumee nii nii mistake oo kee dinañ la seetluwaat de ah jéey bee korosila le ko denke de président juddowul Banjul ako ah, président man wulu Banjul déedéet dowul fii ako hani an wulol bani gen baal ma génn tuuti jamono bi bi jëlee réew mi ees ako el si hakkitu nga taa kooma dama ni waato min naa ñi bankoo taa kutake ñu war ko mu jë mu ñu jógee fa mu jël ele mu dem élection into élection di for the first time mbota jee ndunta élection kono si la foloo la 96 pour ñëwaat pour waat paak to murunna 96 kotenke mu wara wa ca ca stadium bi ñanta kalila stadium oto bi ñoo prepare celebrations yooyu kabirim be o juralo ma iba ko topoto la man lañ ebaloon ma dem kanilay yaatele kiinum atata kanila ma dem kiskisi kii kan la a taatala kool jiibe taatala kool kiskisi ñun séeréer yu ndaw yële ndol ndol kasinkan diŋol ñun lay ebaloon foofa yen dolle kiinu njee ñu kas ñu kisi kisi ko yàlla koo kisi kisi seet lanay woon ay jikkoom yaay nga jikkool jiibee nga xam si nga diggaale lanay xar baaxam nga xar baax lanay meloom ah, nga la nga nga walla kul